dëkk fi ci Daga Daawur tay population bi yewoo ci Daga Daawur ak Daga Silati ak quartier yi nga xamanteni ñoo ci bokk muy Daga Ngor sar Daga ak Kër Daawda ñom ñofu dajalo ngir wax jafé jafé bi am ci courant bi waroon na ñëw ci Daga Daawur su ngeen sétlo bi élection présidentielle yi passé ñett fan xawma ñent fan ben entrepreneur bu ñu wax lamiña mo fi ñew ne kurang moy prestataire bi gagner marché courant bu Daga Daawur andi équipe am le même jour mu commencer liguey bi té lolou aussi li koy moy gis ngeen potu courant yi tëdd nii am pax yo xamanteni ne gas nañ ko ba paré pour lepp ngeen xamné ne donc courant dagg daw dafa yemb ba paré mais ñu am ci mbettel mu reuy bi ñu toogee ay fan ñu dégg ne bi arrêté nañ ñu né arrêté luko waral ñu jog sol suñu dal dem séti kilifi nga xamanteni ni mbir mi seen mbir la dem nañ rencontrer le délégué régional de la Sénélec de Kaolack. même l'entrepreneur en tant que tel aussi jokkoo nañu ak moom mais ñu xamal ñu ne waa dagga daawar dañ ne pour que ñu samp pot ci seen tool il faut ñu indemniser man il faut ñu jox leen ndàmpaay loolu nag tax ñun waa dagga ñu ne la xamuñu wax jooju fan lañ ko jëlee mais waa dagga daawar yebaluñu kenn waxuñu kenn ne dañuy laaj dara ci poto yi nii soxlawuñu pot soxlawuñu dara dagga daawar laajuñu dara ñun courant la ñu soxla parce que courant moo ñu yitteel comme ñëpp dañoo bokk ci réew mi si loolu weesoo aussi bëgg leen fàttali ne élection présidentielle yi passé bureau bu Daga Daawur la coalition Bassirou jo Bassirou 2024 moo fi gagné mu nekkaat loo xamante ni kilifa yi ngànk politique bi defet bi nga xamante ni moom lañ amoon ci bureau Daga Daawur bu nekk defet boo xam ne daf leen touché ba léegi moo tax ku naa Daga Daawur jéemuñ ci waxuñ ci ŋaaŋuñu ci ñun nag ñu ne ñun jógal suñu bopp ak ñoo bopp ci réew mi su loolu weeso Daga Daawur am na benn centre de formation professionnelle et technique te ku gis tey nguur gi ñëw nga xam ne dafa renforcer politique euh, formation professionnelle Daga Daawur centre bi ñu attribué ñu ko même site bi ñu ko war a tabax mairie délibéré na ko at moomu noonu délégation jógee ne IAAB Kaolack ñëw fi xool site bi am na sax ay magasins yu jotee visité ni lii war naa mën a nekk un local pour ñu mën a démarrer donc l'ouverture donc de ce centre mais bi fii ñuy wax yéen gisuñu centre dégguñu dara ñuy ragal nag. centre boobu ñu détourné ko yóbbu ko feneen moo tax ba léegi ak nguur gi bees bi ñëw ñëw ci jub jubal jubanti ñu bëgg centre Daga Daawur ministre bi yor formation professionnelle mu jubantil ñu ko ba centre bi mën a dellusiwaat fii ci Daga Daawur parce que xale yi soxla nañ ko su loolu weesoo Daga Daawur ak Sileti ak li ko wër population bi macha allah yokk na yokk bu jéggi dayoo dëkk bu toll noonu nag mënul am poste de santé mais case de santé bi fi nekk case de santé bo xamanteni ni fa la janax yi ak mbóoti ak mbaam di réunion lool nak la ñu case de santé bu fonctionnel lañu bëgg mbaa une case de santé améliorée ou bien ñu tabaxal ñu poste de santé parce que population bi daf ko exiger jigéen ñi ku ci matu charrette lañ lay tek fi ba 5 kilomètres té xam ngeen charrette la mu ci nekk ak risque yi ci nekk. toutes ces difficultés là donc mom lañ bëgg donc ñu lever ko parce que nous sommes des sénégalais qui avons droit donc à une santé à une santé. fi ma bëgg a jeexalee mooy soo xoolee bi ngeen ñëw diggante télé bi ak fii poussière ak pax xaw nañ leen sonal soxla nañ piste de production muy ranran soo jegee fii nii nar a dem ba Guinguinéo muy suñ chef-lieu départemental war a jaar Mbaafay daaru euh, Kër Mor Samb mba ay Ngàcc Caareen yëpp yoon yi ay pax ak ay kàmb la te ñun Guinguinéo mooy suñu chef-lieu départemental Guinguinéo am loo xam ne dafa am muy un marché hebdomadaire de luuma population yi fii da ngay war a écouler ses doo am loo ko parce que yoon yi baaxul avec les PUDC, pratiquement toutes les communes ont bénéficié donc des pistes de production, sauf la commune de Ngatchi Naouré. moo tax ñun waa Daga Daour ci les autorités politiques mënuñ ñëw waxal suñu doléance Daga Daour pour wax ay doléance su boppam donc lii daal moo nekkoon donc suñu jafe-jafe jërë ngeen jëf. ñàkkum courant bi aussi xam courant mooy sukkali réew dëkk mënul sukkaliku te amul courant gis forage bi nii château d'eau bi taxaw gis ngeen antenne bii nii am nañ école case de santé bu fonctionné am nañ fi ay juma au delà même de ces investissements xoolal ma jigéen ñi seen gën yi ak ci kuur yi te lii àdduna daf ko dépassé sokk ak kuur ak gën wol ak loxo loolu àdduna daf ko dépassé même pour charger sa téléphone portable il faut que nga def ay 3 ba 4 kilomètres ça c'est anormal weeru koor su ñëwee da nga yërëm xale yu ndaw yi ak risque bi surtout ci weeru koor bi xale dafay woor dem wuti glace war a dox ay trois ba 4 kilomètres te loolu yëpp ay risque la moo tax courant mooy loo xamante ni ku ko ñàkk mën naa ni ci lëndëm nga nekk non musul am musul am travaux yi dafa commencé gis ngeen poteau yaa ngi nii gas nañ lépp mais soo gisee tey mobilisation mobilisation bi fi am jigéen mag ndaw ngeen xam ne dagg daaw dafa nekk dans le besoin ba tax na ñu un appel aux autorités compétentes en l'occurrence le président Bassirou Diomaye Faye nga xam ne doomu kaw gi la di doomu njagañaaw jafe-jafe yi mu xam ne waa kaw gi dagg daawur jafe-jafe yi am ci yeneen village yi moo fi nekk loolu la li bëgg donc mu jeex te ñoom lañ ci yaakaar parce que ñoom ñëw pour le jub lu jubal et lu jubanti